mooy dañoo war a xam ni euh, màggali lu sëriñ Touba sàkku la ci ñoom ku am sens sëriñ Touba sàkku ci yow dara dara nag loolu bariwul bariwul kon màggal nga mën a teg baaraam ni lii sëriñ Touba moo ko sàkku ci man diw leneen looy def sëriñ Touba sàkku ci yow bariwul ba hatta hadiya sëriñ Touba sàkku ko ci yow loolu kon ginaa màgg na noonu li ci yow nga xam ni ngërëmul yàlla ngay sàkku ji subhaanahu wa te ngërëmul yàlla yombul te boo ko selalee da nga ko am muy occasion bu la sëriñ bi jox nga war a yëg ni tamit li suñu boroom wax ni bëgg naa ko koy def waaye ñu tuutee koy def mooy sant yàlla yow tey jii boo màggalee ngir sant la sëriñ bi yow bokk nga ci ñi suñu borom di wax ni ñooy minorité bi nga xam ne ñoom ñi ngi sant kon dangay xam ni euh, yeneen yi nga xam ni yëpp dafa safaanoo ak ak njum nag kii màggali da koo war a fase da koo war a bàyyi ba màggali bu ne dama koy bàyyi ba màggali wu ñëw bu jaante ga daa dëgg da koy foofu bàyyi donte loo xam ne da ko doon jëfandikoo la ndax. Euh, nit ki war naa ragal yàlla ginnaaw mu ngi màggali ba du jaay loo xam ni dafa primé nit ñi di ko lekk du jël oto boo xam ni ba mu gëjee def ndox kenn xamul kañ la nga def ci ndox ñëw di ko jaay Tuubaa te am na du profité ci màggal gi meew mu primé mu sensé emballage bi ñëw du ko def ilaaxiri ilaaxiri yooyu yëpp du ko def du gis ni léegi contrôle mënut a am ndax bariwaayu oto yi mu jël oto bu munta yab ndax visite technique baaxul yooyu kon domaine yëpp domaine bu mu ci mën a doon warul jaar ci mbedd suuf yi ngir dugal loo xam ni luy mandiloo nit la lu xaram la lu ñuy tere Tuuba kon yooyu bokk na ci eh, ni ñu war a màggale bu ñëpp bàyyee yu bon yi ma wax nii yu baax yi ma wax nii ñu def ko dañuy màggali bu ñëw doo dégg dara loo xam ni lu safaanoo ak li ñu war na def ci màggal gi la alaa kulli